lu yéeme moo am ci enquête bi nga xam ne ñi ngi ko doon enquête kii di Bougane gay Dany moom moomee nag ñu bare xamee woon ko nag ci franc parler bi nga xam ne nekkee woon ko ci mbedd ba mu jàkkaarloo ak takk der yi yeneen jafe-jafe mooy yeneen kàddu yoo xam ne nag bokkut ak yi nga xam ne moom la daan yëkkati te it mu nekk loo xam ne nag commencé naa jaaxal lu bari ci askanu Sénégal ci vidéo bi nag da ngeen ci mën a am maanaam Bougane Gueye Dany la mu wax ak la mu def ak la mu deful loolee lépp bu ngeen ñu toppee bu vidéo bi jeex da ngeen ko am bu baax a baax ñu leen sàkku ci yéen abonnement yi ndax information yu wér moom la ñu gëstu te it moom lañ am yéen génne di ko teg ci télévision bi nga xam ne moo nekk Aladji Malick TV ndax lu dul dëgg-dëgg ko gën moom njiital gëm sa bopp démb nag dem na euh, daanaka euh, bi midi bëgg a jot fële nga xam ne moo nekk euh, brigade criminelle fële nga xam ne daanaka moo nekk ca Ndakaaru waaye nag ba mu àggee gis ngeen mbooloo mu bari mi nga xam ne teeru nañ ko foofee wala bokk ñi nga xam ne ñoom la àndal ay ñoñam ndax soo nee mbooloo te xàjjale woo mën naa jur leneen waaye ay ñoñam ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ànd fa ak taskatu xibaar yi nga xam ne ñoom it takk woon nañ fa lool ba mu dugg see nag yëkkati na ay kàddu yëngal foofu wane boppam waaye nag ba mu dugg fee fa nga xam ne nag foofee la ko enquêteurs yi jàkkaarloo moom beneen Bougane Gueye Dany moo fa nekkoon moom ñu doon ko toppee nag yi ci ëpp solo mu nekk li nga xam ne mooy diffamation ak euh, li nga xam ni euh, moo nekk euh, lii la di fausse nouvelle Euh, maanaam yooyu nag bokk ci yu bëree bëri ak yeneen yu ci laxas waa ñaar yooyu mooy li nga xam ni ëpp na ci solo moom nag enquête nan ko mu daal di toog jàpp njàmbaram gars yi di ko laaj question par question question bu dem moom mii di Bougane Gueye Dany mu daal di tontu la nga xam ni euh, moom la ca war a tontu loole nag nekk nag lu ñëpp jàpp ni nag noonu la waroon a demee ndax bu fekkente ni da nga jàkkaarloog ñi ngay enquête ñu laaj la nga tontu. Ah, te it ñu bind euh, tontu yooyu nekk loo xam ne lu ama am ah, solo la moom buggaa dee ni nag li jaaxal ñëpp te am foofee nga xam ne moo nekk ci mbirum enquêteurs mooy bi mu tolloo nag ci li nga xam ne mooy enquête nan koo ba pare xam nga tey ji su fekkente ni dañu lay woo ni la yaa def nangam nga ni waaw wala déet yaa def nangam wala waaw nga ngay wax lu tax def ko nga ni nangam tax waroo woon a def li nga ni lii laa waroon def nangam léegi yow bi nga demee ba nga xam ni enquête nan la nga wax a wax ba pare bañ ne la ndax liñ la laaj lépp tontu nga ci nga ni waaw liñ la fi indee woon ñu laaj la lépp nga tontu liñ ci war a tontu liñ ci mënta tontu nga bañ ko cee tontu xam nga loolee am na ci këyit wuñ koy def woo xam ni PV la tudd léegi nag biñ demee ba pare ci loolu ba nga xam ni yaakaar naa ni pare na ci lépp ñu ni ko Bougane yaa waxoon nangam mu ni waaw ñu ni ko léegi dañu bëgg nga signé ko maanaam PV bi li nga xam ne maanaam moo ne ci biir enquête bi def nañ ko ci PV bi léegi li moom Bougane Gueye Dany nag ci information yu ne am na ko mooy li li nga xam ne mooy PV <laughs> loolee nag xam naa ni yaakaar naa ne dooy na waar wax dëgg yàlla du fenn lanu far waaye nag wax dëgg yàlla bu fekkente ne dañ la yaa def nangam nga defuma ko mais war nga mën a signé ni defuma loolee maa ko wax ba pare ànd akub signature kon bu fekkente ni da nga yebbee ko ci ay kàddu yu bare bari ba pare wañu ko ñëwaat si ñëwoo li nga xam ne mooy PV loolee dana jaaxal ñu bari nag loolee bokk na ci sax li tax sax moom moom ñu gën koo euh, sërëxal maanaam mu fanaan foofee nga xam ne daanaka mooy euh, guddeem gu njëkk te it daanaka dana amaat yeneen ndaje yoo xam ne dana ko jàkkaarloog li nga xam ne mooy enquêteurs yi yeneen ndaje yoo xam ne nag dana nekk yu am solo xanaa nag li ñu jeexale ci moom ba doon kon na ci Cheikh Yérim Seck maanaam mooy euh, ñu ñaanal ko moom Bougane Gueye Dany xat-xat yi nga xam ne nekk na fa mu daal di fay gaaw jóge xat-xat yooyee nag bu fekkente ni lu mu tooñoon la mu jégglu dem yoon yoonam bu fekkente ne ñim ko def mën nañ koo jégal bu fekkente ne tamit loo xam ne maanaam dañ koo tooñ moom it euh, mu jéggale euh, beneen bi ci des mooy ñu ñaanal ñëpp jàmm nag ñaanal président ak premier ministre am yàlla suturaa leen ba mébét bi nu am ci Sénégal mébét moomee yàlla def ci ay xéewal Cheikh Yérim Seck moom it ba tey ma ngay continuer di des ci li nga xam ne mooy ndungu sin loolee nag yaakaar naa ne xam naa kenn ci Sénégalais yi xaaru ko woon ndax boobaak tey mi ngi bëgg def jàpp ñett ñeenti fan yoo xam ne moom mii di Cheikh Yérim Seck ba ñu ko wooloo foofu foofee si cybercriminalité ba tey jii yaakaar naa ni delluwul këram te amuñu benn information buy wane nii euh, maanaam moom moomee dellu na këram te kon euh, delluwul këram ndax moom bu delluwoon këram dana yëkkati ay kàddu wax ko moom it ñaanal ko jàmm te it yaakaar naa ne gën a toogaat xalaataat Sénégal meilleur gi nga xam ni ñëpp a ko bokk.